assemblée nationale maanaam pencum ndaw réew mi foofee Dembourou Sow ab jaasi la génnal ki nga xamante ne moom mooy Augustin mu mel ni nag ay gént waaye nag dëgg la du ay gént ab jaasi la génn fële ca diwaanu assemblée nationale moom mi nga xamante ne moom mooy ab député di Dembourou Sow di nag menacé ki nga xamante ne moom mooy Augustin loolee tax ba kiy jiite assemblée nationale di Moustapha Niass di woote ak dal ngir nag fexe ba benn ñawteef bañ fa jóg dem na sax bay wax ñu yokk li nga xamante ne moom mooy karange gi mu nekk nag lu amoon démb ba ñuy voté ay projet de loi yoo xamante ne nag jur na coow fii ci réew mi.